هلال أو جمال فأوت متى لا وجه الحاشم وأسمت تبدى فألا fii nag mooy innovation bu mag bi nga xamantene nemeku nañ ko ci édition bu Mawlid international bu Medina Baye ci atum 2024 bi ndax rek cérémonie officielle bi way bi jeex legui legui ni dañ ko avancer 24 euh, heures avant rek li nga xamante ne moo di euh, guddik yonente bi euh, waaye nag mu ngi faral muy ak tamit inauguration esplanade bu yanj bi nga xamante ne moo war a dalal li nga xamante ne moo di guddik yonente bi fii discours yi nag daanaka mu doon ay discours yi gàtt waaye tamit nag discours yi am solo bu si njëkk ba mooy bu ministre de l' intérieur fi nga xamante ne moo nekk si bopp délégation bu am solo ngir rek teewal fii li nga xamante ne moo di gouvernement bu Sénégal di ñëw nag Jean Baptiste Tine nag ñëw rek pour rek waneen li nga xamante ne moom moo di bébétu euh, nguuru Sénégal ngir rek tabax li nga xamante ne moom moo di unité africaine. président de la république mu ngi jaajëfal bu baax taalibe cheikh al islam yi bàyyeeku ci àdduna yëpp ñëw fii Sénégal teew fi bés bii loolu suñu fierté la ak suñu ndamu réew ndamu Sénégal la ndax maam Baye Niass ambassadeur islam ak ambassadeur Sénégal la woon ci àdduna si yëpp. rawatina ci Afrique yëpp te tamit loolu ndono la ndono la héritage la boo bu ngeen bu ma bàyyi seen loxo ma xalifa bi tey ak xalifa yi ko fi jiitu woon yëpp sa taxawaay taxawaayu xalif bi si bitim réew rafetlu nañ ko lool ndax ci dox jàmba la mu mel ni nag Kaolack dafa di tribune bi nga xamante ne moo gën a yellul rek pour waxtaan ni li nga xamante ne moo di unité africaine ndax day nationalité yi bëri nga xamante ne dañ ciy faral di teew ngir rek euh, mën a ñëw magdal si li nga xamante ne moo di guddi yonent bi sëriñ si duñ em rek ci ñaan ndax ñu ngi ci seeni liggéey yi nga xam ne ni réew mi daf koo soxla dégg nga lépp luy développé réew ñu ngi ci ñu ngi yar nit ñi yar boo xam ne ni dëgg-dëgg bu ko réew amee duñ am difficulté pour ak seen peuple waaye mu ngi ñaanal président yàlla jàppale ko ci liggéey bi may ko ndam ba nga xam ne gént yi ñuy gént pour Sénégal yàlla dana ko mën a sottalee ci loxoom yàlla sàmm ñi jàmm ji nga xam ne yàlla mu ko def ci Sénégal te gàmmu lenn la ci nga xam ne nii luñ yaakaar la pour jàmm yooyu mën a am